asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ginaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te wér sunu woote bii nag ak sunu jataay bi li ko waral rek mooy bis bu mag bi nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalif général des mourides yàlla na fi sunu borom yàggal lool te mu wér euh, woote na ko euh, woo ci taalibe yépp mu war a nekk àllarba la 11 août 2021 fii ci tuubaa woote bi nag woote bi mi ngi jëm rek ci bis bu mag bi nga xam ne ni fas nañ ci yéene dajale mbokki taalibe yi jàng xasaayit durus ko waaye rajas waaye zikrullah jëme ko ci ñaan waaye jëme ko ci tawassul jëme ko itam ci gën a dundal li nga xam ne nii euh, mooy yoonu murit incha allahu taala bis boobu nag Serigne Mountakha euh, jox na ci ndigal ki nga xam ne ni mooy yor kàddoom muy Serigne Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne moo yore kàddoom toftal ci sëriñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne ni fu ñu tudd xasida xel yépp dem ci moom waaye toftal ci jëwriñ ji nga xam ne ni moo jiite daara yi Hizbut Tarqiyyah muy sëriñ Youssou mi nga xam ne ñëpp xam nañu liggéeyam ak taxawaayam bu rafet bi nga xam ne ne amee na ko ci yoon wi amee ko itam ci xasida yi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bis boobu nag fu ab taalibe mën a nekk ci réew mi ak bitim réew euh, suñ borom may la nga mën koo fekkee sëriñ Muntaxa woote na ko fii ci Touba muy bis boo xam ne ni képp koo xam ne ni yaakaar nga sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi lay xaar ci bis bi bis la boo xam ne itam euh, taxawal nañ ci ay commission yu am solo ngir fas yéene yaatal liggéey bi balaa la onze incha allahu taala muy sëriñ Gana Mesere sëriñ Bousra Samb sëriñ Abdoulaye Diop Bichri sëriñ Saliou sàmb waaye itam sëriñ fàllu euh, Galas Silla bis la boo xam ne nag boo gisee ñuy def appel bi dañoo bëgg képp ko ko seetaan gis bannière bi di nga xam ne bis bu ñuy woote la waaye nag ci ndigalul Cheikh Mouhamadul m ginnaaw bu ñu joxee ndigal li sëriñ su Diop waaye jiital ci ñaari jëwriñ yi muy sëriñ Bassirou ah, mu Cheikh Abdoul Khadir ak sëriñ Amsatou Mbacké moom sëriñ Chouaïbou bés baa ngoog danañ ci amal ay plateau ci télévision yi ci rajo yi waaye itam ci internet bi ngir fu yi ba mën a nekk rek yëg yëg woote bi waaye teew ci bis bi ku am jumtuwaay boo xam ne itam jëm na ci bés bi lu ñuy jëfandikoo fu mbooloo di daje xam nañ ne dañuy soxla jumtukaay yu baree bare yoo xam ne nii dañ koy jëfandikoo ki nga xam ne mooy communication bi di Serigne Assane Mboup euh, bu Hizbut Tarqiyyah kon danañ ànd nag moom li nga xam mooy liggéey bi ak commission communication bi ci wàllu liggéey bi ak yaatal gi télévision yépp ñu ngi leen ci woo fas nañ ci yeen itam am ay jataay ci télévision yi nga xam ne ñoo ŋànk yoonu murit ak yi nga xam ne tam ñoo nekk ci réew mi fas yéene ànd ak ñoom li nga xam ne mooy liggéey bi ci yaatal bés la boo xam daal bu ko kenn tardé incha allahu taala la sëñ Tuubaa waxoon ne matun nabiil Mustafa Kafaani la kulla adduwin baadama saafaani bis boobu nag la Cheikh Mouhamadul taxaa woote mu jàng xasida kuréel ak rajas ak waxtaani sëñ Tuubaa rawatina nag zikrullah ci commission yi nga xam ñi ngi koy yaatal ni ngeen ko gisee ci bannière bi noonu rek lay demee muy àllarba incha allahu rabbi le 11 août 2021 fii ci Touba di ci sàkku teewaayu mbokki taalibe bi yépp ak mboolem kuy kilifa diine wala nga kilifa ci yoonu murit ak wàllu woo mën a yore wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh